campagne électorale daal nay ubbi ci biir Sénégal ak li ko wër lépp mooy li nga xamante ni mooy jëm ci jongante yi ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier candidat bi di Zahra Iyane Thiam nag di ut li nga xamante ni mooy mairie bu Sicap Liberté daal dinay door tey li nga xamante ni mooy campagne daal di koy ubbee fa nga xamante ni moom mooy église ba nekk ca Sicap dem wax ak ñi nga xamante ni ñoo fa nekk ngir daal di fay sàkku ñaan ginnaaw bi nga xamante ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy prêtre daal dañ ko defal ñaan daal dinay wutali fa nga xamante ni moom mooy association bi nga xamante ni moom moo ëmb mbooleem imaam yi nga xamante ni ñoo nekk ca Sicap muy liberté 1 ba liberté 6 extension ñoom tamit def li war daal di koy ñaanal ba président dalal xelam ne ko li nga xamante ni moom lay wóotu ñi ngi si ginnaawam di ko ñaanal ngir mu gañe ko ginnaaw ci loolu nag dem na ci yeneen bërëb yoo xamante ne ñu nekk ci biir Sicap Liberté laata moo dem fa nga xamante ni moom mooy grande mosquée ba nekk foofu fekk fa mbooloo mi nga xamante ne ñoo ko fa doon xaar doon ko defal ay ñaan laata moo dugg ci bërëb bi nga xamante ni ab kilifa bu tëdd moo fa daa tëdd mu dugg foo daal di sàkku ñaan def ay duwaawam ngir mën a waajal li nga xamante ni moom mooy meeting bi nga xamante ni mooy meeting d'ouverture bi mu amaloon ca Liberté 1 mu mel ni nag mbooloo mi feesoon nañ fa teel ci image yi nga xamante ni wane na ko waaye mu mel ni am na tamit ambiance bu am solo boo xamante ni amoon na fa ci ay artistes yu bari yoo xamante ni ñëwoon nañ fa. ci cappaandaw ko nag si la ay kàddu yi nga xamante ni moom mooy programme bi mu bëgg indi ci fa nga xamante ni moom mooy Sicap Liberté buñ ko falee ci ñaar fukki fan ak ñett ci janvier bi ñu nekk. surtout surtout maa nuyu la jeunesse. le juin dama taxawoon fii ma taxaw ci xolu Sicap ànd ak bëgg bu xóot bu sore ci man ne waa Sicap maa ngi leen di laaj seen baat di ngeen juin moo doon les élections municipales ma ñëw waxtaan ak population waa Sicap ñu xamal ma ne suñu doom nga fii nga dëkk way bi ngay way neex na lool waaye li ñuy xaar ci suñu doom mooy mu nekkal ñu nekkal suñuy soxla nekkal suñuy aajo am loo xam ne mën na ko indi ci biir gox bi ma ne nag kon baax na dinaa dem réviser sama leçon te juróomi at a ngi nii maa ngi jàng tey bésu tari moo jot juróomi at maa ngi wër gox goxaatu Sicap Liberté yi xool lan la xale yi soxla xool lan la mag yi soxla xool lan la jigéen ñi soxla xool lan la góor yi soxla xool ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu koom-koom lan la ñu soxla ba ñu ko nattee xayma ko maa ngi taxawaat tey fii ci seen kanam ci turu coalition Bennoo Bokk Yaakaar mu gën a soriti lool sama xol di leen laaj seen suffrage au soir du 23 janvier 2022 waxtaan naa ak yéen déglu naa leen saafonte nañu bokk nañu àndandoor xool lii metti ci suñu gox bi tënk nañ ko ci juróomi ponk nee nañ ma Zahra soxla nañ nga xool jàngu xale yi xoolal école primaire yi xoolal suñu doom nu ñu nekkee ci école yi xoolal environnement école yi mais surtout dimbalee njaboot gi ndax affaire bi xaw na diis tuuti xoolal mooy gunge xale yi nekk primaire ci école yi ma ne leen danaa ci taxaw te danaa def lu raw taxaw nee nañ nañ xool formation bi dinañ ko xool nañu xool xëyu ndaw yi dinañ ko xool ma ne kon loolu mooy nekk suñu premier point ci suñu programme dinañ gunge école primaire yi dinañ gunge formation professionnelle bi dinañ gunge xëy ndaw ñi ñu ne ma bu ñu yem foofu nañu xool la gestion du cadre de vie suñu gox goxaat yi Sicap na mu meloon démb royukaay la woon ñëpp ko doon seetaan ale buntu bàyyi rafet lool boo leen xoolee suñu jardin yi yëpp ñu am xam ne fii am na environnement bu ñu bëgg dinañ def de Sicap Liberté une commune de référence gis ngeen ñi jël parole tour à ci micro bi ay xale yu ndaw a ndaw ay xale yu bees tax ay xale yoo xam ne seen xel day màcc dañoo bees ñooñu lañu fas yéene indi ci biir commune bi ànd ak l'expérience et l'expertise des aînés ndax Sicap noonu la benn bopp la kenn mënu ko xar kon dinañ xool la gestion du cadre de vie moo xam si wàllu aménagement moo xam si wàllu assainissement moo xam si wàllu gestion des lieux de culte moo xam si wàllu environnement moo xam si wàllu sécurité mais du ñu yem foofu ndax ñëpp xam nañ ne jigéen ñi ñoo yor koomu réew mi jigéen ñi ñoo yor njaboot bi kon danañu taxawu jigéen ñi l'entrepreneuriat de femmes et des catégories socio-professionnelles dina am pàcc bu am solo ci suñu programme wér gi yaram taxawul suñu mag ñi taxawul suñu papa yi taxawul suñu njaboot bi moo tax première action bi nga xam ne incha allah moom la def bu ñu duggee ci bâtiment bi ci sama gannaaw bu ñu duggee ci bâtiment bi la dinañ ko fi teg pour suñu parents yi waaye dina ñu xool culture bi dinañu xool sport bi dinañu xool loisir bi kon foog ñu xool Stade Demba Diop am na nag am na ñoo xam ne dañu ne ministre nekk na ministre ba pare kon na bàyyi ñeneen ñi nekk maire waaye duma ko def ndax man Sicap ba ma ñor ba ñuy commencé liggéey Sicap xel rek la ñu amoon ñu jël xel yi boole koog suñu baaraam yii bi ñu jëlee xel yi boole suñu baaraam yi jël suñu tànk yi boole ci jël suñu jàmbaar jël suñu ñaq jël suñu yéene di dox tepp tepp ngir defar Sicap ku xam Kalidou Dieng xam jeunesse bi doon ànd ak ñoom ngeen xam ne yàgg nañu liggéey fii biir Sicap liggéey boobu dañ ko tàmbali mais dafa matagul dañ ko fas yéene matal ndax li tax ñu fas yéene ko matal mooy dañu am président bu ñu teg ci yoon muy le président Macky Sall ñëpp xam nañu liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci réew mi xanaa ku bëggut gis waaye ku bëgg gis bëgg sa réew am ambition pour sa réew di nga xam ne depuis 2012 yokkute am na ci réew mii moo xam ci wàllu courant la moo xam ci wàllu mbay mi la moo xam ci wàllu santé bi la moo xam ci wàllu éducation bi la mais surtout yokkute am na ci équité territoriale tey booy génn Dakar di dem ci yeneen région yi sa xol day sedd ndax infrastructure yi am fii ñu ngi koy tabax ci biir réew mi kon bu ñu dee doomu gox bi doomu gox bu ne bu taxawalee goxam dama ne ñun ñëpp dinañ taxawal Sénégal kon waa Sicap Liberté maa ngi leen di woo ci ñu àndandoor taxawal Sicap Liberté ndax li fi xew Sicap musu koo am dem ba toll ci ñu am ndomba tànk yoo xam ne permettre nañu ñu mën a taxawal Sénégal mais permettre nañu surtout ñu mën a taxawal suñu gox bii muy Sicap ndax ñëpp xam nañ ne waa SICAP pour nga yëkkati leen ci politique c'est très difficile mais tey waxuma la mag waxuma la jigéen ñi waxuma la entrepreneur mais ndaw yi ci seen bopp ñoo jug c'est la jeunesse de SICAP Liberté c'est la jeunesse de SICAP Debout avec l'espoir. Debout avec la conviction qu'on peut faire mieux et plus pour notre commune. Debout avec le ministre maire Zahra Iyane Thiam. Accompagné de ses vaillants membres de la coalition Benno Bokk Oui, population de Sicap, nous serons là pour les enfants. Nous serons là pour la jeunesse, mais nous serons surtout là pour notre commune. coow li coow li bu kenn nañ ko def ndànk ndànk ku wóolu sa bopp ku xam fooy teg sa ku jàpp ne dangay nelaw ba yàndoor tëb tiit ci ay nelaw ne damay ñëw maa dama ne di nga fekk danaa taxaw gauche dana taxaw droit ndax daf ma wóor ne dama dul wéet ci yoon bi dul ci wéet moo tax ma ne tey lañu départ dinañ départ xotti Sicap jaar Bourguiba jël yoonu Castor dem ba Patte d'Oie loolu mooy dañu jàpp ne Benno Bokk Yaakaar dafa war a am vingt sur vingt dix yi nga xam ne moo nekk ci biir Dakar Benno Bokk Yaakaar daf ko war a gañe bu gañee loolu ba pare gañe ville de Dakar ndax nag Dakar est la capitale Dakar est la convoitée belle Dakar est la mère des batailles, mais Dakar sera la conquise par Benno Bokk Yakaar. Car nous devons faire de notre capitale une référence et nous pouvons réaliser cela avec le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui ambitionne de faire de Dakar un hub économique où les femmes y trouveront leur place, où le secteur informel y trouvera sa place. où les jeunes y trouveront leur place, mais où surtout nous aurons une capitale où il fera bon vivre dañu tàyyi ci maaj bi fu ñu tourné nañu kay leen ñu maaj ñu dem place de l'Obélisque fu ñu tourné ñu ne sànni leen xeer loolu la ñu tàyyi dañu nekk ci jamono joo xam ne dañuy bëgg liggéey ci jàmm ak salaam ndax lii ñu def fii tey jàmm rek ko ko mën a maye bu jàmm amul woon du ñu toog fii di waxtaan di fo di ree di seet lu mën a jëmale suñu réew kanam kon nag maa ngi ñaan acteur politique yëpp nañu xam ne tàmbali bi ñu tàmbali campagne électorale bi du campagne yu soxante du campagne yu waxante lu ñaaw du campagne yu dóorante campagne yu xel la na ku nekk wax sa programme ci jàmm ak salaam ku taseeg sa moroom nga jàdd wala nga may ko mu jàll su paree ñu bàyyi population yi au soir du 23 janvier 2022 ñu wax seen scrutin def seen choix te choix bi benn la ci kat dégg jàmm ànd ak coalition Benno Bokk Yaakaar teg ndam li suñu loxo ñu defar suñu commune indi la ñu góor kenn ku nekk gis ci sa bopp maa leen di sant di leen gërëm di leen wax nag na leen ma xaar maa ngi ñëw liberté 1 maa ngi ñëw liberté 2 maa ngi ñëw liberté 3 maa ngi ñëw liberté 4 te nag bu ma demee liberté 1 danaa fa jël sama caabi ndax caabi yi bâtiment bi ci ginnaaw laa soxla bu ma demee liberté 1 naka nga fa nekk pare wala ñu jël suñu caabi. ba liberté 6 kañu fay fekk danañ ko yenn ba ca kaw. bés bu njëkk bi nga xamante ni nag Zahra Iyane Thiam ubbi na li nga xamante ni moom mooy campagne bi. jëm dimanche fa nga xamante ni moom mooy ci yeneen gox yi nekk ci biir Liberté ak fan zone yi nga xamante ni war ko créer waaye tamit di dalal ki nga xamante ni moom mooy candidat bu ndakaaru di Abdoulaye Diouf saar ngir ñu daal di woyal def ay caravane jëm ci nit ñi nit ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir dëkk boobu ngir gën leen a feddali seen mbébét eh, ci biir gox bi nga xamante ni mooy Sicap Liberté